en tout cas pour cette présidentielle là y a que des premières et des premières et des premières. <laughs> donc. ça moom c'est vrai donc dara du ñu bett. no dara du ñu bett mais en tout cas li leer ba leer mooy que euh, non seulement la constitution mais euh, la loi électorale notamment euh, l'article LO 30. Hmm. moom dafa dafa dafa déjà prévoir le cas de Bassirou Diomaye. moom dafa ne. que cour d'appel principalement la cour d'appel de Dakar dafa am les pleins pouvoirs en matière électorale pour que tous les candidats jouissent de la même égalité et que cela tous les pouvoirs sont donnés au premier président de la cour d'appel de faire injonction à toutes les autorités c'est-à-dire waxul sax autorité administrative toutes les autorités la wax pour que candidats yëpp mën a bénéficier du même traitement donc dans le cas d'espèce président cour d'appel mun na moom auto automatiquement saisir le doyen des juges ordonner la liberté waxuma demander de ordonner la liberté de euh, Bassirou mm. Mm. donc loolu c'est un cas qui est déjà prévu mais comme je dis que on est dans la saison des premières des premières et vous êtes dans l'avant-première euh, qui est encore un manquement par rapport à ça. ça va pas être waaw parce que on a noté x x x. au au cas où au cas où génn comment il va mais man euh, keroog maa ngi xool. Euh, maa maa keroog maa ngi xool. ñoom euh, kay dinañ battre campagne man kay je parle du candidat. mais équipe maa ngi xool keroog kii wu Sénat bi quoi justement. communiqué. non non pas le communiqué. j'étais en train de voir les textes de la Sénat euh, pas Sénat texte de du CNRA. Hmm. moom bi ñu prip la génn nii. mais ma ne mais foofu laa wax ma ne mais Babacar Diagne. il a tout faux hmm. parce que les textes ne disent pas. waaw c'est que sanu candidat. fii lañ ko war a filmer wala fee lañ ko war a filmer dañ ne sanu à trois à ces trois ou cinq minutes. Mm-hmm. defee. fi ñu koy filmer fi koy defee moom. mais moom liste bi Maria liste bi dafa génn rek. ci ëllëg si mu génn. de toute façon un en prison du ñu du ñu dem. mais mu nga moo tax ma ne la. en tout cas li leer ba la moi j'ai essayé de revoir les textes mais gisuma fenn fu ñu ne spécifiquement. Ah. Euh, Maria candidate. cette TV lañ ko war a filmer war a wala la dafay war a war a dafay sa prise de parole son temps de parole déet waxuñu ko kenn waxul le lieu kenn. président il doit bénéficier de ces trois. de ces trois moom bu ñu ciy donc <laughs> xam naa ne nag. ça va être ça va être une nouvelle entorse. nouvelle entorse waaw parce que tamit. le fait que mu bañ a bénéficier des dispositions de la loi de l'article LO 30 waaw su boobaa LO 30 dina suur sama gars ñoom Khalifa ba pare nag mu bañ a def bénéficier de son temps de parole mais mooy que tey jii mais on est en train de lui faire une campagne électorale mais sublime wala trois minutes yi dañuy def